da doon dof ci mbedd yi. naan Adamo lan <laughs> lawbe baa ngi nii. eh Adamo nga ne lawbe bi lu mu wax. Adamo lawbe yi man samay xarit lañ ñoom ñëpp maa leen di solal rek leer. baax la de mais ni muy waxee téléphone baaxul. day mel ne ku picc mat nii lay def di tudd dem. lan lay def Adamo lan lay def Adamo. Adamo lu muy def.